man la raamatu bu man du ma nëbb sama kanam Macky Sall yaa bon Macky Sall yaa yées Macky Sall aan wanaa netlu man xaal dañoo amoon fullaak faydam kono bëgg nguur eko ko ngujjudaa ko foofu li nga sàcc yëpp moo tax bu ko bàyyi nguur bi parce que li sa sa famille yi nekk alentour xam nga jox nga leen alal ñuy nekk di di di di ko foye bës boo fi jógee yow yaay tax ñoom ñu dem prison loolu donc moo tax buggoo fi génn lekk nga lekk lekk man musuma foogoon nekk yow di nga def lu mel ni deux fois laa dem ambassade Sénégal di fight for you twice regret naa ma def ko parce que yow doo nit doo nit pare nag bëgg indi dictature fii foog nekk di nga nekk di intimidate people doo ñu intimidate doo mun a intimidate sunu journaliste yi fi nekk munoo intimidate Ousmane Sonko actually Ousmane Sonko moo la tee nelaw Ousmane Sonko nag di ko bàyyi ci nii wala ci naa yàlla moo ko fi teg gis nga Fallou nekk président yow par chance par erreur il fa lekk nga jaar fi mais xam nga lan moo lay jëlee fii toroxte toroxte moo la fi jëlee dama at na lan ngeen bëggoon comme ni ngeen def Assane Diouf yàlla àndu ci parce que Assane Diouf xëy na problème bi muy ñëw am na ñu bari ñi nga xam ne ñu mel ni man euh, xamuñu woon Assane Diouf parce que man li ma nit ñi doon wax rek laa dégg mais xam naa ne Assane Diouf. ku bëgg Sénégal la am na Ousmane Ba bu nekk fële tamit euh, euh, fa naa Canada la nekk ak ñooñu ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen yéen ñàkk fayda nekk di lekk nguuru euh, dundu nit ñi keroog bi manifestation bi amee quatorze personnes de am ay xale tuuti ci de xam ga xale tuuti lu tax ñu nekkoon di fight parce que dañoo xiif amuñu lu ñu lekk yow Macky Sall rey nga sunu doom yi ci océan Atlantique bi sunu pàpp yi sunu mag yi ñëpp rey nga leen ci océan Atlantique ndax bëggee loo am yow alal bi foo koy yóbbu da ngay dee nga xanaa booy dee dañ la koy yóbbaale sa biir pax ñàkk fayda ba jël sunu géej bi jaay ko kii français yi lu ñu am nga jaay ko français yi benn marché bu am nga jox ko français yooyu yaay seen jaam moo tax bi ñu demee di dessiner sunu prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nga dem ci ñoom. di na naqar lu rey yo yaa ñàkk fayda fii laay toog nag gis man jóge naa Maryland maa ngi fi New York maa ngi fi New York te ragaluma kenn lan nga may def danga may déporté no you cannot do that ma nekk naa fi thirty seven years old thirty am seven years kenn musuma dégg ci lii mais gis nga li may def nii pour man hijab la pour xeexal muslim yi ñi nekk senegal ak chrétien ak koo mënta doon ku yetee ko mëni foofu ko bande sénégalais foofu ko bande Macky Sall yow yaa yàq Sénégal yow yaa indi waxu waaso yi ko oyo wi ko Farmata Ndiaye fuuta tampi fuuta tampi man dama xamul ñi lay votel ñi ñii di wax sa wax ñii di lekk rek la parce que ku lekkul moom gis li ngay def dina la jéppi dina la bàyyi yaa ñàkk fayda nga lii daloon xadaf yi moo la nar a dal ak sa ñi nga àndal ñooñu kooku ñu naan nekk xaw ma naka ngom doomam sàcc na deux cent cinquante million fan la kooku di mën amee deux cent cinquante millions yow ci sa bopp nga tabax fi États-Unis kër gu mel ni mansion yéen a yées sàcc sàcc rek la yal na ngeen torox xaalis bi ngeen lekk bi yal na génn ci yal na feeñ ci yéen balaa yowmal xiyaam loolu rek laa leen di ñaan Macky Sall bàyyi nit ñi ngay jaxase sénégal amul oko haalpulaar ala oɗo ko joola ala oɗo ko séeréer enen fof ken bandiraɓe bu ñuy wax ngay diktaat nit ñi mel ni euh, yaa sokhor soxor booy wax sax dañuy sentir euh, soxoraay bi nekk bi di génn ci sa gémmiñ yaa bon yaa yées nit ñi bu ñu wooree ba léegi ngay nekk di sonal nit ñi chim maa leen jéppi maa leen bañ gat li ngeen defoon ci ci ci kii Ousmane Tunkara gat tey jii de moom war ngeen nekk di jooy seen defet ndax def ngeen lu nekk nekk nekk pour ñu yóbbu ko kenn yóbbu ko nga xam ne yàllaay kërim yow di nga fi jóge yàlla moo la fal di fi jóge nekkal di déglu sa dof yooyu naan da nga dem wuti ci troisième manda parce que anyway you for you you don't care you don't care ndax nit ñi dee nañu wala deewuñu famille yi dee demuloo fa sax jaale leen yaa bon yaa yées ak ñi nga àndal ngeen di lekk xaalis gouvernement bi yal na ngeen torox te fekk deewagu leen sax ngeen gis ko fii ci àddina balaa yomal xiyaam stupid as full balaa boobu kay ma xool rek sunu sunu mbokk bi Pape ale Niang jóge ba Sénégal pour dimbale ñun ñi nekk ci diaspora bi ñu lay ñaanal yàlla foo bëgg yàlla na nga fa yegg yaag sa njaboot ak yeneen journalist yi nga xam ne ragaluñu dëgg la ñuy wax te yàlla rek moo tax